mbokki gambien si yaa habibi sopp dabax Malick textile ñoo ma yónni ci yéen te wàññi ko waruma benn yoon lépp li nga xamante ni jëm na ci wàllu piis bu ñuy sol seen jaaxle jeex na si ndax xale yi ñoo xarañ ci loolu mbasin riche original jasner original fila ñu am foofu kese la am brodé til waxi original lépp li nga xamante ni jëm na ci wàllu piis boo demee ci yaa habibi sopp dabax Malick textile am na fa dañu koy jaay ci wholesale dañu koy jaay ci retail yow mi nga xamante ni da nga bëgg a dugg ci jaayum piis boo demee ñu teg la ci yoon boo amul xaalis boo ameeloo garantie ñu jox la piis nga dem yi ñëw indil leen seeni koppar yaa habibi sopp Dabakh Malick Textile ñu ngi ci marché Serekunda bu fekkente ni da nga jógee Westfield Johnson Hydra Plaza bi ngay duggee rek di nga leen gis noonu bitig baa ngi noonu ñu bind yaa habibi ca kaw ci sa lef hand la lay féetewoo bu fekkente ni da nga jógee Babun Fati Johnson di dem marché Serekunda pasel ma kër Khalifa Sall xoolal bitig bi mu ngi ci sa right hand yaa habibi sopp da baax Malick textile bu fekkente ni da nga am xew nga bëgg piis bu raar demal ci ñoom muy piisu góor ak piisu jigéen ñii wàllu textile réew mi ñoom ñoo ci teg tànk xanaa lii mooy giitangaas kol leen ci 3 4 1 6 6 3 5 wala ci 2 4 5 0 4 4 0 yaa sopp da baax Malick textile ci milem réew kenn du ci ñoom yaay ma am lu bees tàq ci géej waaye ak li ko wër kon yéen ñi nga xam nag ñooy dëkkee ci bi bu leen jooy benn yoon grande surface di dem marché wala dem boutique di tàq wala boog di rang-rang yu métti jeex na fii dem leen ci paale mini ma nga ca géej waaye ca marché bu bees paale mini market dina la jaay lépp lu soxla ci biir kër meew diw ndox ceeb ay jus naturel yu mucc ay ay saucisson lépp loo xam rek di ko fekk si grande surface ma nga ca paale mini market ay ginaar yoo xam ne ñu ko defar ba mucc ay daf ko ci emballage yu market dina leen dalal ak équipe commerciale bu mucc ayib boo xam ne ñu ngi fa taxaw di leen xaar dina leen dalal te tàggal leen ngeen jënd te du am benn jafe-jafe Fapal mini market supermarché la boo ni doxantu ci biir supermarché bi day mujjee doon bànneex ndax yaatuwaay bi du Fapal mini market loolu moo tax ba kii di ndaayaan bay foofu la ñuy di jënd seen i ration xool la ci biir supermarché bi yaatu lool Fapal mini daal moo noppal askanu banlieue bi loo gisee Fapal mini dañoo war a ñëw si dëkk bii. mooy dëgg. parce que kii waaw ci dëkk bi la juddoo ci dëkk bi la yaroo mënoon naa dem France investir fa mais def ko dafa ñëw fii ci biir dëkk bi def fi li mu fiy def muy paala mi lu ma kon waa Géejawaay li war a def. waa Géejawaay yëpp dañoo war a ñëw ci paala mi maquet. waaw li ñuy jënd ci Dakar. waaw di ko jënd ci Tëngéej. jëndee fu nekk ci àdduna bi. waa moom da koy indi par avion mu ñëw. te lekk bu <laughs> dara dara baala waay. waaye loo si xamul Paale Menu Market mun ngaa toog sa kër jokkoo ñoom par téléphone ñu jaay la indi la ko ba fi nga toog te doo buusi Paale Menu Market daal jënd sa ration kër day mujjee doon ba neex. sa baay la dégg nga gis nga ku ko bëgg yab sa baay lay xool man ku ma bëgg yab sa baay. ah maa la wax respecté gën ko respecté. Eh, waaw noonu la. <laughs> ni ay nit bu ñuy ànd. Ah. dañoo waxante dëgg. dëgg su ma la wax dëgg. bàyyi ma su ma mënta wax dëgg ma bàyyi la. Ah, kay wax dëgg dooñu laa ñu dem ci tey. Aïcha ñu waxal dëgg. sa naan bii ak sa gens bii nga bàyyi ko mu jeex nga man koy ànd ak man da ngay nekk ci dara lu jubal dégg nga. man yow waxoo sànni butéel. la sànni moo. ah ñu ànd nga ne ma sànni ma sànni ko. Eh, faraato. yàlla faral ma ko. Eh, xool bii laa man affaire yi noonu la may def day am weer muy ñëwaat rek. <laughs> yaa ngi wax de. walaay noona. loolu laa bëgg sax. xanaa xam man bu may julli. Hmm. dama yuuxu si kaw. <laughs> yoo koo yoo. salaamaaleykum. <laughs> salaam. bu baax. ana ngooñ. ah ngooñ ngooñ. bàyyi ngooñ. nga ne. bàyyi ngooñ. Eh, man maa ngi ah doomu la kan man la booy séeréer yow ngooñ sa baay la sama baay de sama xaritu papa papa la to yow doomam nga dama lay yóbbante si yow si moom ngooñ nee ko booy séeréer dik na fi ñàkkuma fayda ba ngooñ roñ ma ay ngooñam ba mu jeex ta ba pare di ma daw dem naa pak ba ma ko fa fekkuma fa baay ngooñ fekkuma fa ngooñ su ma boniraatee fii ma ñàkk sama ndey barke fa pes ah du dina métti de dina métti dégg nga li ma la wax du est-ce que comprendre nga. ma ne ngooñ nii man woo papaam rek. en tout cas baay papaam ngaak général ngaak nijaayam ngaak dégg leen li ma leen wax. Eh, dégg waaw saa waay ngay wax xaw ma bàyyi ngooñ. yéen ñaar ñëpp laay waxal waay yow laa fi fekkuma fi bàyyi ngooñ bu ma fekkul bàyyi ngooñ da yow laay fajee sama mère lan la. man dëkk moo fi man dëkk moo fi saxaar booy waxal xaw ma koy waxal. problème bi mooy ma ñàkk sama ndey koor gee métti rek mais kon ma sal fa saa. kon nag nga tàllal ba caaka jaay. Eh, eh, ubbil boo ubbee ma ñàkk sama ndey ma tey. ubbil xool da ngaa baax yow yow yaa eh, bu xoola bu ma waxee da ngaa baax dégg nga xoola dara génnal de dama lay noq ba nga tëb dégg nga li ma la wax booy man man yi ngay def ko man damay géej ba dama damaa chronique dégg nga ma ma <laughs> leen ma ngoo nii ok alright lii waay sarab lii sarab lii sarab ba waaw. kii nit la wala yoon dem laa dem laa du ma nit dem <laughs> laa dem laa. <laughs> ah waaw engagé ma rek xool. nge kii boo ko laalee ma laal la fii léegi. waaw yow boo mu <laughs> eh, ah, ah, laalante lay. laal ko boo bu ma ko laalee nga laal ma ma laal la. wóor na yàlla foo nga may laal du ma man du ma lay laal du ma lay laal ndam de. kaay dama lay laal ba ca biir. waaw ñu nga laal ko. di nga yéex a mayeeku de. waaw baale. waaw yow fii see de. jul waaw jul. sa taal yu jeex yi. booy tuur doogu bum ñaaraat bum ñaaraat. waaw may wax may wax. sama gis na yow. yow alcool la rek. alcool. boo ma waxaat alcool ni de. may bul ma ko waxaat ma ne alcool. booy ah, bu ma ko waxaat demal te yàlla tax bàyyi ngooñ nekk fi demal. damaa xiif bu dégg nañ la. maa xiif waaye ñun xeexuñu tàllal la. waaw raaj moo gën a am jam jam am de. kii ba dama ko waroon simi génne tuun gi piweew ñun bàyyi ngoon moo ñu fi indi lu nekk sama papa dafa mën a fat rek dina fat rek loo xamante ne ñoo ko bàyyi ngoon newu fi daajal wax ju bari ana bàyyi ngoon génn na daajal wax ju bari imbécile kii a baax rek barkaal bu fekkoon bu fekkoon sama jikkoy wóyu bi yow ba teel naa ko def loo xamante ne dina dem ba këram lamb affaire yi du ko gis tëpp laa koy def ba xaar naa mooy kii ba teel mooy la gis nga la xam laay def affaire yi tege ko kii naa baax saa yi gis nga ko gisuma jom nga yow yow nag benn amoo jom amoo fulla amoo fayda amoo looy bañ mais lan lañ la waxoon ci kii. lan moo nekk ci kii. bu bon bii nga xam ne gens la nekk dëkk beeg sàcc man duma sa baay du ma sa baay mais sa baay am na lu ma wax bàyyil kii. booy booy ndaayal bàyyil gens gens baaxul. xaaral ma léegi nekk sama eh, booy. loo doon ba ma ma may cokku. ah am ngay cokk. ba ci ak waa am naa. waaw am ngay cokk ba nekk sama ay booy. waaw bàyyi gees. gees bi booy gees ba sax cokk war a bàyyi gees. ba yàlla bàyyi naa ko. kii dama ay gees yaa ma duul. gees baa ngi may jënd fi may waxee yow ni mu ngi xeeñ ñu naan bàyyi. bàyyi naa ko. lii xeeñ ñu doon. lii xeeñ lii la la. lii xeeñ. di ko xaa lii xeeñ la la. waaye da ngaa bàyyi. waaye ngooñ gis nga yow doo fi am sa paan di lijjanti xam nga booy séeréer wala xamoo booy séeréer. maanaam paan mooy lan. <laughs> dégg nga li ma la wax dama ne yow xam nga booy séeréer wala xamoo booy séeréer ma question est simple. booy séeréer. borom fas wi. ki nga roñ loo ngooñ mi. waaw war ko jox xaalisam. waaw après nga dugg rox. waaw moo fi ñëw bëgg amoon attaqué ma ne ko may ma cinq mille dinaa la woowaat bàyyi ma ñëw bàyyi na fi ñëw war a am de. bu ko woo dégg loo ko wax. ma ne ko bàyyi woon génn naa. waaw. mu neex fii di jox dof ba nga wax si biti mu neex léegi noonu baax na léegi li ma bëgg mooy meen mi bàyyam sama xarit la te yaayam la ko tudde yaa ngi dégg comme yaa ngi koy fréquenté bàyyi liggéey si rek fréquenté moo ko ma koy jàpp bàyyi ngooñ gis nga na génn bi su yoonu alhamdulilah instant bi ci ay projet amoon nga xaalis bu yàgg. waaw boo xamante doom. essai moo ñëw ba semence. ne ma woo ma bàyyi ma koy. ma ne ko loo koy doye. te xaalis boobu jaay parfum yi ñu tudd. kan la. ki jaay parfum. te xaalis marché bu bëri. yoro kebe. yoro kebe. yoro la yoro. yoro keebe. waaw ba ke alxuraan kay digg bi ci mag. gisoo. fan la bi di marché marché boobu ba fii la jaay xay. waaw boo ko jaayee. waaw jubal. waaw ba ke alxuraan foofu la. maa ko doon may daal daal. ma ñëw ma ne ko waayow. loo fi mu ne sama place mi ngi. Hmm. xool ay bonbon. waaw ay keeb. formal bi kër boobu affaire bi neex bi lu mu ko xam mu yàq bi mu ko xam fromage gruyère. fromage waa déedéet. parce que waaw léegi léegi jox na la numéro téléphone wala jox la numéro téléphone. joxoo ma ko dañoo. waaw gis waaye mu ko kon kay takk jóg la. ma ne ko soxla mu ne ma walaay léegi léegi boo ko indil ma ko ma ne ko. takk jóg la loolu amatul xaar. ñu dem ñu dem kay. xamuñu. nan demaale rek. waaw yow nu ma bëgg yow. xaaral ñëw sumu loo bëgg mu ngi énaare. pardon day yàq mbëgg nga jox nga rek baamu une session. yow la leneen. mbaa mbaa mbaa ne fi di di wax waxi solo. parce que awoor dëgg la waaye. dama lay wax rek. dégg nga. dem nañ bàyyi ma fi de lii ak sulaar neexut lii dama lan laa war a def instant bi ñëpp def nañ maa ma dem tëddi rek ma nuyoo sama jër gi man de dama fi yàlla gërë gisee gërë gisee rek so ci namoon naa la gërë gisee eh lii du foofu kaay xale de. ah lii du lu ñuy lekk nga naan foofu kaay xale. oh xool suuf ya kaay kaay rek yoo day la sawaay koo koko sawaay. saare daal sawaay yaa ngi ci jàpp. sawaay. man de wër naa la fu ne mënuma laa gis. daa fekk kër ga. ma ne sa waa ji yoroo. ci ruq bi nee na nag dalaa na mun a seet torop torop torop torop. billaay walaay taal. waaw ñun daal ba mu ce que client yi ñuy ñëw génn xoola ndax affaire moo tax xaa xaa waxtaan loolu nga rek. xam nga xam bàyyi mooy boo gisee paala mi ni ah. xam nga biir dafa soxla dëgg la te alimentation doomu aadama bu koy jën dafa war a jënd bu set te sell ah. Ah. moo war a paala mi ni makke dem ba Amérique dugg biir New York Washington jënd fa alimentation yu wóor indi Sénégal ah produit yi produit yi jógee fii quoi. non non non non. dem nañu Amérique ah moom. dem nañu Amérique dem nañu Dubaï dem nañu Siin ñun nag li ma wax ndaayaan mi rek laa lay wax. waaw suñu base mooy géejewaay marché bu bees. Ah. pas le mini market foofu la nekk. Ah. am na lépp loo xamante ni doomu aadama da koy soxla ci alimentation. am nañ aussi ay ginaar yu mucc ay. yàlla ginaar. fëriñ la fëriñ. ginaar dafay am. am na ginaar yu baax ak la. am nañu ay jus naturel am nañu ay farine comme ni mu ko defee nii lépp loo xam ne doomu aadama da koy soxla comme alimentation. waaw am na fii ci Paala Minimarket kon nag euh, Baye Ngoné képp koo xamante ni yaa ngi dëkk Géejawaay di doomu Géejawaay oh jarul ngay jéggaat. man kay li ma la ciy dolli mooy li ma la ciy dolli mooy. kon géejawaay daanaka jërëtul kenn di jël oto naan da ngay dem Dakar wala ngay dem fenn di wuti bagage da ngay ñëw fii ci marché bu bees Paala Minimarket loo bëgg am na. ku bëgg a wàññeeku bëgg a jeex bi pam bi. yow xam nga affaire yi xam naa la pompe <laughs> bi la. sawaay barake. waaw ba muy wàññeeku bii la naan. bii bii pompe bi la. il ma delloo ko bu ko joxee. non non non bàyyi bàyyi bàyyi non man ma wàññeeku de. man kay li ma bëgg mooy ndaayam. ponkal. déedéet bëgg maa loo xamuloo bëgg. nu taxaw fii ci bunt bi ñi nga xam ne dañ doon dem Dakar. waaw di wuti ay produits. Ah. ñu am na géejawaay marché bees Pala mi di Macky. waaw yaa ngi dégg su ko defee ñoom Balla Gaye ñoom gars yëpp ñu sensibiliser leen ñu daal di ñëw paale mini maquette di fa jënd seen i ravitaillement man nii laa wax de. te xanaa xamoo jarul dem Dakar jarul dem Tënge jarul dem Bari jarul dem Dakar jarul dem fenn lu fa waaye di wëri. am na boo ñëwee si fekk ko baax yéen baax si yéen a waxee. boo toogee sa kër nga woote ci paale mini maquette. waaw ci seen numéro ah? la ko. Ah. boo accès bi ñaata la waaw. Euh, 959. 959. 28 18. 959. 28 28 18. 33. 33. 959. 959. 28. 28. 18. 18. boo composé numéro boobu rek kenn dina la wuyu ci ki nga xamante ni fii lay liggéey. nga wax li nga bëgg. nga wax li nga bëgg li préparé ko. amee ñaare. kon baax na kon baax na jërëjëf. kontaan naa allah kontaan naa comme ñëw fi kontaan naa comme ñëw nga sama xol set na guyu wax dëgg yàlla réccu ma liñ doon xamante ndax su ma su ma su ma la xamoon nga nekk Amérique dafa liggéey yem biir Amérique rek kon kon du baax waaye nag da ngaa dëkk fii ci réew mhm. di liggéey fii ci réew mi kon gàcce gi ngalaama yow yal na sa fan gudd. amiin amiin amiin jërëjëf nan la kaa ñëw. non xoolal xoolal day sàcc day sàcc non non non bàyyi ma jox ko ñu baale rek bàyyi taxawal taxawal bàyyi bàyyi non non non xoolal li nga yóbbu loo soxla nga yóbbaale comme cadeau. kon baal ma yóbbaale diwlin rek. ah diwlin kese doy. benn baax na bëri baal naan ah, comme d'habitude. ah ma xaar naa woon kaay. kaay ñëw. <laughs> ah merci waay. jaajëf. waaw. merci beaucoup. merci merci merci. gis nga géejawaay yëpp. waaw àdduna woon nga képp. dañoo war a ñëw si dëkk bii. mooy dëgg. ndax dem fii waaw. ci dëkk bi la juddoo ci dëkk bi la yaroo mënoon naa dem France investir fa mais def ko dafa ñëw fii ci biir dëkk bi def fi li mu fiy def muy paala mini maquette kon waa géejawaay li war a def. waa géejawaay yëpp dañoo war a ñëw ci paala mini maquette. waaw li ñuy jënd ci Dakar. waaw di ko jënd ci Tëngéej. waaw di ko jëndee fu nekk si àdduna bi. waaw moom da koy indi paas avion bi ñëw. te lekk bu neex la lekk bu baax la. baara bi ma may. baara bi ma kay ay baara. yow dafoo dara dara baara waay. yow doo Weeru koor bi daa ñëw si yaa habibi sopp dabax Malick textile ñoo ma yónni ci yéen te wàññi ko waruma benn yoon lépp li nga xamante ni jëm na ci wàllu piis bu ñuy sol seen jaaxle jeex na si ndax xale yi ñoo xarañ ci loolu mbasin riche original jasner original fil à fil yi ñu am foofu kese la am prode brodé til waxi original lépp li nga xamante ni jëm na ci wàll piis boo demee ci yaa habibi sopp dabax Malick textile am na fa dañu koy jaay ci wholesale dañu koy jaay ci retail yow mi nga xamante fekkente ni da nga bëgg a duggati jaayum piis boo demee ñu teg la ci yoon boo amul xaalis boo amee loo garantie ñu jox la piis nga dem jaay yi ñëw indil leen seeni koppar yaa habibi sopp Dabakh Malik Textile ñu ngi ci marché Serekunda bu fekkente ni da nga jógee Westfield Johnson Haidara Plaza bi ngay duggee rek di leen gis noonu bitig baa ngi noonu ñu bind yaa habibi ca kaw ci sa lef hand la lay féetewoo bu fekkente ni da nga jógee Babun Fati Johnson di dem marché Serekunda pasel ma kër Khalifa bi ci sa right hand yaa habibi sopp da baax Malick textile bu fekkente ni danga am xew nga bëgg piis bu raar demal ci ñoom muy piisu góor ak piisu jigéen ñii wàllu textile réew mi ñoom ñoo ci teg tànk xanaa lii mooy giita ngaas kol leen ci 3 4 1 6 6 3 5 wala ci 2 4 5 0 4 4 0 yaa habibi sopp da baax textile ci milem réew kenn du ci ñoom Thank you. ah lu bees tàq ci géej waaye ak li ko wër kon yéen ñi nga xam nag ñooy dëkk ci bu leen jooy di dem marché wala dem boutique di tàq wala boog di rang-rang yu metti jeex na fi dem leen ci paale mini market ma nga ca géej waaye ca marché bu bees paale mini dina la jaay lépp lu soxla ci biir kër meew diw ndox ceeb ay jus naturel yu mucc ay ay lépp loo xam rek di nga ko fekk si grande surface ma nga ca paale mini ay ginaar yoo xam ne ñu ko defar ba mucc ay daf ko ci emballage yu am solo rafet nag Paale dina leen dalal ak équipe commerciale bu mucc ayib boo xam ne ñu fa taxaw dina leen dalal te leen ngeen jënd te du leen am benn jafe-jafe fa Paale Mini supermarché la boo xam ni doxantu ci biir supermarché bi day mujjee doon bànneex ndax yaatuwaay bi du Paale Mini Market loolu moo tax ba kii di ndaayaan bay ngooñ foofu lañu ñëw di jënd seeni ration xool lañu ñu doxantoo ci biir supermarché bi yaatu lool Paale Mini daal loo àdduna woon nga képp dañoo war a ñëw si dëkk bii. mooy dëgg. ndax que kii waaw ci dëkk bi la juddoo ci dëkk bi la yaroo mënoon naa dem France investir fa mais def ko dafa ñëwul fii ci biir dëkk bi def fi li mu fiy def muy paala mi du maquet kon waa Guédiawaye li ñu war a def. waa Guédiawaye yëpp dañoo war a ñëw ci paala mi du maquet. waaw li ñuy jënd ci Dakar. waaw di ko jënd ci Tëngéej. waaw di ko jëndee fu nekk si àdduna bi. waa moom da koy indi par avion mu ñëw. te lekk <laughs> dara dara baala waay. waaye loo si xamul Paale Mini Market mën toog sa kër jokkoo ñoom par téléphone ñu jaay la indi la ko ba fi nga toog te doo bouger Paale Mini daal jënd sa ration kër day mujjee doon ba neex.